kon mbokki tëdd yi ñu ànd ak cheikh imam Hassan Cissé ci waxtaan wi nga xam ne mi ngi aju ci mawlaana cheikhul islam alxaaji Ibrahim Niass kon ñu déglu imam Hassan Cissé.
islam rek la am islam boobu yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko indi mooy ki nga xam ne moom la yàlla tànn muy soppe yàlla yàlla tànn ko muy mu gëm yonent yi dañ ko yónnee gannaawam yonent la ko tëkk alquranam gannaawam téeréem mënatu caa topp dina gi caa bi ñu indi gannaawam diine mënatu caa topp yàlla wax na ne inna diine lillahi l'islam diine sa yàlla mooy lislaam téeréem bi itam baax na di ko gisee kanam di gisee gannaaw te xam na ñun amul lu may jàpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne kenn ci yéen du gëm feeg dana lu mu ko doomam ak bàyyam ak ñun ñëpp ñu amoon na ko yow de yaa ma gën a ñun ñëpp wax dëgg def na ko donc maa ngi jëm ci yàlla mu xam
yooyu dañuy wax bàyyi jàngul gadde rek soo maam mi nga xam ne moo njëkk ci kër gi ne na ma li ñëw fii mu ne su nit ñi tàggoon ak bàyyi gannaaw gee dana taalal bàyyi sondeel mu tiim sondeel bi di jàng ba mu jeex mu taalal ko bu ñaareel mu continuer di jàng ba mu jeex mu taalal ko bu ñetteel su xaajee rek ñu nodd fajar ci jumaa ja mu dem julli ji soog a ñëw tëdd te guddi ñetti sondeel la gannaaw guddi gu nekk daana jàng ñaari sondeel ak genn wàll seetal kon lan la desal ci guddi waaw dégg nga te àll àll ak guddi ku raw say morom rek ci nga leen rawee waaw ndax bëccëg bi ñëpp a njàcce ñëpp a ngi lay xool ci nga loo def nit ñi def waaye guddi nag déedéet du pour ñëpp de waaw guddi moom du pour ñëpp ñi biddiw lañ ñi weer lañ ñi dinañ suuf soo mënta nekk guddi soo mënta nekk jant soo mënta nekk jant pour dundal bëccëg bi yëpp nekkal nekkal weer waaw dundal li ëpp ci guddi nga suuf wala nga nekk biddiw boobu soo fekkee ba mu yàgg nga suuf waaye boole yëpp rek tëdd nelaw pour de waaw su amee rek rëcc rëccu dina ñëw neen góorgóorlu bu baax te jàng te li lay xamal ne moom téere ñu jàng na ko lettre bi ma mujj binduloo fii mu jëm ci ilimaani Banjul imaam dafa yónnee di laajte benn masala ci diine ji pour toxal jàkka ji wala julli àjjuma gi place bi ñu ko doon defee yóbbu ko ci beneen place bàyyi oo ma wax ma benn téere téere boo xam ne nekk na fukki volume ak ñett kan la fukki volume ak ñett mun na ma demal nga seet ci volume numéro 4 chapitre nangam da nga ci fekk masala mi nga jàng ko nga bindal ma leetar tontu ma ko ma dem seet ko ba gis ko indil ko ko mun na ma xam nga kañ laa gëj ci téere bi dama ko gëjëw bi ak tey ñeent fukki at ci ren allo ak sa xam-xam ñi ñi dem àllaaxira sax te am xam-xam ñu ëpp daraja ñaamu ñaamu xam-xam ndax ñi xam ñaam xam-xam xam nañ li ñu war a ñaan daraja yi ban daraja moo ci topp daraja illi yi naag yooyu yëpp xam nañ ko maq addi sitkan waaye soo jàng yooyu yëpp doo ko xam du nekk ci sa xaal gannaaw dañ naan la mébétal loolu defal ñu loolu mébét ñu defal la ko su fekkee nit ki jàngu dafay mébét lu kii rek ma defal benn pale rek mu fa mën naa cee nopp naa ko waaye déedéet man dem pale ca kaw ca jëmmi yàlla ja rek dégg nga ku jàngut doo xam loolu dégg nga sama bàyyi bi ma jógee hôpital ak bàyyi dama ne ko bàyyi de benn bés dañoo takkoon benn pikiir ci loxoom waxtu yu jot mënta jàpp mënta mënta tiim mu ne man nu may jullee tey man mënumaa jàpp mënumaa tiim fi ne ma ne ko bàyyi bul julli tey man boobu maa ngi jàpp rek laa yukallifu llaahu nafsan illaa wus'ahaa yàlla tegul benn jaam lu mu attanut bàyyi ne ma loolu la imaam Malik wax wa man lam yajid ma an wala mutayammama fa arbaatul aqwaali yaxkina mazhaba yusalli wa yaqdi aksa ma qaala malikun wa asbahu salla wa adaau li ashhaba mu ne ma loolu la Malik wax maanaam soo demee ba mënatoo jëfandikoo ndox mënoo jëfandikoo tiim dañuy wax ne ñeenti atte ñoo nekk foofu mën ngaa julli rek ci anam goo mën di jullee soo demee ba wér wala soo demee ba mën a jëfandikoo ndox nga fay wala di Malik wax Malik def ne laa yusalli wala yaqdi du julli te su demee ba am ndox wala tiim du fay asbax ne da ngay julli rek ashab imam ashab ne da ngay da ngay da ngay fay dégg nga Malik nag moom daf ne laa yusalli wala yaqdi mu ne loolu la Malik wax waaye man damay julli man waaw waaw kon moom jël na ngëri abul qasim abul qasim moo wax ne laa yusalli yusalli wa yaqdi maanaam nga julli te waxtu boo mën a jëfandikoo ndox wala tiim nga nga fay ba nettalee sama bàyyi loolu nettali ko bayti yi bàyyi tari mu ne ma nit ku garde xam-xam ba tëdd ci lali dee garde su xam-xam dégg nga loolu nag jàng moo koy maye waaw bu doon ndax soo soo demee ne soo gisee ne ñoom bàyyi dëgg la am na may yàlla waaye góorgóorlu nga ci biir ndimbal daf cee fekk loxol borom waaye toog fii rek foog ne bàyyi mi dafa juddu nii rek am xam-xam am alquran fi nit ñi jaar rek jaaral nañ ko comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alquran ñoom ñëpp ni ko nit ñi di jàngee ne noonu lañ ko jàngee malaaka mi daje naag yonent bi njett ko njettaat ko nangam nangam am bàyyi itam daanañu wan benn liggéey fii ci tànk mu ne balaa mer jigéen nekk ñëw ci kër gi naan ko sëriñ daara bi dóor na sama doom mais man sama bàyyi moo ma doon jàngal te fii moom moo dóor ba gaañ ma fii dégg nga dégg nga ak gannaaw jàmbur lay jàngal nag lu mu la teg rek tegoo ko te jàng yàggut bàyyi daf daa mu ne jàng yàggut ñàkk a jàng moo yàgg jàng yàggut ndax lan su fekkee ne junnee junnee page la wala junnee ligne la sax bari bu sesoo jëlee benn ligne su yàggee mu jeex waaye soo toogee jàngoo benn ligne du jeex mukk waaw ñàkk jàng moom du jeex mukk jàng moom dana jeex waaw su fekkee ne téere bii téeméeri page la bari bu see nga jàng ci benn page wala genn wàlli page sax soo ci defee ñaar téeméeri bés wala ñetti téeméeri bés maximum mu jeex waaye su fekkee ne ubbiwoo ko sax da ngaa toog rek tëdd di nelaw nekk ci leneen kon téere bi du jeex mukk dégg nga te ngeen di dimbandikoo itam di jàpp di garder seen i njàpp imaam Shaafi bokk na ci borom xam-xam yu mag yi ci xeet bi moom mooy borom ngiri Shaafi parce que ñu ne Malik ñun Malik ngiram moo gën a tasaaroo fii ci suñu sow jant ci ñun Shaafi boori Égypte ak fële ca Asie imam ahmad ibnu hanbal ak abu hanifa te ba pat ba tey imam shafi boobu mu ne dafa dafa dafa jàmbatal sëriñam ne ko moom daal dafa naqadi xel wala du gaaw a dégg daal waaw mu mu ne ko maa ngi lay digal ci nga bàyyi mooy yàlla maa ngi lay xamal itam ne xam-xam leer la te leer ak yàlla gi yàlla du ko jox mukk mooy katab yàlla moo tax ñu bëgg sopp nañ waxtu wu nekk ci jàngkati xam-xam muy muy takkoog njàppam waxtu woo waxtu woo takkoog sa njàpp rek yow yaa ngi ci leer xam-xam leer la soo jàngee rek da ngay gaaw a dégg yaa nga ak xam-xam bu mën di door ak soo ko jàngee ngir àddina itam moom su xam-xam dikkee rek dana nekkal yàlla moom imaamul Xasaali bi bàyyam di gaañu daf ko daf leen a bàyyee benn dëkkandooram moo ko rakkam Ahmed kooku ba mu jëlee seen tërika maanaam di leen seen bàyyi bàyyil dépensé ko ci ñoom ba mu jeex da wax ne aha yéen kat li ma seen bàyyi bàyyi woon ci xaalis jeex na léegi nag maa ngi dem pour jéem leen a fexe dugal leen ci madrasa yi madrasa nizaam yi maanaam école yi gouvernement bi ci jamono jooju nga xam ne soo fa nekkee ñoom ñoo lay amal dëkkuwaay amel la lekk ñoom idée boobu moo leen yóbbu ci madrasa dem ndax ñoom fu ñu nekk am lu ñuy lekk ndax la leen seen bàyyi bàyyi doon jeex na te leneen sa suuf waaye bañ demee jàng seen yàlla ubbi seen xel yi ñu jàng jeexal foofu jàng jeexal nangam nangam ba xëy nekk ay borom xam-xam moo tax mu wax ne talabna al ilma li gayrillahi fa aba an yakuna illa lillah bañuy sàkku xam-xam dañ ko doon sàkku ngir mu lu duur yàlla maanaam ngir am dëkkuwaay ak lekk ak nangam nangam waaye xam-xam moom su ñëwee rek yàlla rek lay nekk waaw moo tax dañuy wax ne nga am borom nga am noonu noonu noonu bo nga xam ne jàng na moo gën nga am xarit bo nga xam ne jaayil la waaw noonu bu jàng am na yu bay dugg la bu la ko ñëwee def waaw noonu bu jàngut nag moom lu xelam daj rek mën na ko def ci yow waaw xarit bu jàngut itam su la bëggee dimbale sax mën na laa loraat waaw ndax xamul lu mu lay def xamut waaw moo tax yàlla wax ci alquran ne hal yastawi alladina yaalamuuna walladina laa yaalamuun ñi xam ak ñi xamut duñu am mukk mukk mukk mukk mukk dégg nga amut du benn bàyyi fii ci këram sax am na ñenn nit ñun dafa naa hey li may muñal diw ak diw bokk ci bokk leen ci yéen de maanaam yéen xam ngeen li ngeen war a def li ngeen defee dañ leen ko war a at dégg nga ku jàng lu mu def rek natt na ko ci xelam ba xam di nangam nangam nangam ak conséquences yi ci nekk yëpp xam na ko bala ciy dugg ku jàngut na xamut li muy def sax résultat ba ciy topp itam yoonam nekku ci dégg nga moo tax na ngeen góorgóorlu jàng bu baax dégg nga te bu leen jàngantu itam waaw lépp lu ngeen di xam rek na ngeen ko xam mu leer waaw am nañu yàlla boole dimbale yàlla wattuñu wattuñu ci lislaam wattuñu ci gëm yàlla kenn sallallahu alayhi wasallam barakallah day sa bismillah
dañuy laaj maanaam nga parce que dañoo bëgg ci sunu exposition bi ñu def fële ci fële ci Dakar ñu mën a am ñu mën a am tuut taarixu jumaa ji bi ko bàyyi sosee ak imaam yi nga xam ne jaar nañ fi yëpp ba ba fi liggéey bi toll ci tey ak garantie yi nga xam ne ba joxewoon na ko ci jumaa ji ba fi ñu toll incha allah bu ñu demee fële Dakar. waaw incha allah.
waaw jumaa ji bàyyi moo ko fi def jàkk moo fi njëkkoon a nekk bàyyi ñooy métti na jàkk jàkk ji tuuti lañ fi njëkkoon a def di ci julli di ci jàng aussi fay boori 1937 ba muy ba muy aji ajeem gu njëkk sama bàyyi mooy bi ñu di jógee fii la ko bàyyee xaalis ne ko na móol dafa bëgg su ñibbisee tabax juma muy mille trois cent cinquante cinq ci hijra bi ci gàddaay yonent bi di mille neuf cent trente sept dégg nga bàyyi ne na na dañoo woori mu jógee fi dem aji te tam xarit gi fii la ko fekk mu ne ba mu delsee aji ci ñetti weer dellu si mu ne réew mi yëpp di ko xéen waaw ndax bàyyam dem na ren ba ca déwén sa kenn déggut ci moom dara waaw yow nga dem ci ñetti weer rek dem aj Makka dem Faas dem Kaayra yooyu yëpp bàyyi jaar na ci pare dellu si nga ñëpp di ko yéen ba mu ñibbisee ci atam mooma ci la seen jumaa ji itam jumaa joojoo itam wax naa ne xanaa ñi fi njëkkoon ñoom ñooy taalibe yi dëgg-dëgg ndax jumaa jooju kat ak ni mu rafetee woon ci jamono jooju yëpp ci benn at lañ ko tabax itam waaw te booba miskin yi nga xam rek ñoo fi nekkoon ak bàyyi waa Sénégal yi rek ay Mauritanie yi yëpp Nigeria jëmbal jëmbal ji yëpp bokkuñ ci woon ci jamono jooju yëpp bokk gu joon tey nag bi ci ñëpp bokkee ñun seen beneen jumaa 1958 pour yàq la bii te ba léegi sotteegul moo tax daje samedi bi daje gàmmaat gi na ngeen di góorgóorlu joxe seen bopp de waaw dégg nga ci Ahmed Sukayri bi dafa bindal bàyyi taarixi jumaa ji maqaamu Ibrahima man daxalaw kaana aminan bi hudaahu mu ne maqaamu Ibrahima maqaamu Ibrahima képp ku ku ci dugg rek da nga mucc ci njubam soo calculé baat yooyu rek moo lay jox taarixi jumaa ji at niñ ko fi sant muy muy mille trois cent cinquante cinq dégg nga maqaamu ibrahima man daxalawu kaana aminan bi hudaahu mooy tolloog mille trois cent cinquante cinq xam nga ci arab arab fu nekk dafa am chiffre bu muy tolloot alif benn la baa ñaar la jiim ñett la daal ñeent la demet ba ba ngay demee ci laam muy fanweer miim di ñeent fukk nuun di juróom fukk ba ba ngay demee ci junne ci junne la am muy chine dégg nga ba ñuy tabax jumaa ju njëkk jooju ca 37 gaa ñi daje di di joxe ñu ne Baye El Hadj Omar Kane moom moo joxe woon junne boobu ñu ne ñu jóg di jàngal nit ñi junne su ngeen xamul junne mooy fifti ba muy fukk muy dërëm dërëm ba muy fukk muy fukki dërëm fukki dërëm ba muy fukk muy téeméer téeméer ba muy fukk nag mooy junne loolu la kii joxe mais noonu lañ ko doon waxee di jàngal nit ñi lan mooy junne dégg nga kon booba junne réy na lool dégg nga eh, fi mu ne nii nag ñun million lañ soxla jëm kaw dégg nga waaw Eh, jumaa ji nag ku nar a texe rek ku texe ak ku nar a texe rek ñu ci liggéey waaw du na xaalis bu nekk lay nangu itam waaw ku texe ak ku nar a texe rek yow la ci sa sa liggéey di dugg moo tax na ngeen góorgóorlu ba dugal ci lu ngeen am dégg nga waaw maa ngi déggee ci nit ñi ne bàyyi wax na ne su jumaa ji paree étage étage yi ñu bëgg a tabax dana taxaw dégg nga waaye loolu tam jar na ñëpp taxaw pour jumaa ji taxaw dégg nga comme ni ngeen ko waxee woon keroog gàmm ga dëgg la buur Maroc jël na initiative pour mottali ko waaye am na yu sew sewaan yu bari ci jumaa ji ñoo xam ne ñun ñoo ko war a defal suñu bopp te olof dañuy wax ne jox la lépp nga jël lépp itam du xel dégg nga fekkee ne wax nañ ne liy rafetal jumaa ji ci biteeg tappaat kenn du leen di wax jumaa di waxaale tappaat kenn du wax di war wax jumaa naan nañ ma defal ay toilettes pour gan ñi nañ ma defal ay néegi gan pour gan ñi classe yi ci kaw nañ ñu ko liggéeyal ñu waxuñoon madrasa jumaa la ñu waxoon te li ñu waxoon ñoom dëgg dëgg soo duggee ci biir jumaa ji da nga xam ne ñoom la ñu waxoon def nañ ko wala ñu wala ñu ngi ci yoonu sottal ko xam na des ci bunt yoo xam ne itam bokkutoon seen programme ñun ñoo ko war a defal suñu bopp ak karo yi ñu war a def ci suufi jumaa ji loolu tam bokk na ci li nga xam ne suñu liggéey la ñun yooyu yëpp daal xam naa su taalibe yëpp dimbalante ci mbir moomu dana sotti ca nam gën a rafet ca nam gën a gaawe yàlla nañu ci yàlla dimbali ñun ñëpp yàlla yool ñu ci itam defal ñu ci barke ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jumaa ji nag même njëkk bu bàyyi di ñëw fii séeréer yi nekkoon fii xam xam xamkat yooyu ñu am na ko fi romboon taxaw na man de bato bato bi ma gis fii mu taxaw te fii géej nekku fi waxtu wu rombee rek dina wax ne bato bi ma gis mu taxaw fii te mu ne soxla kii yaa ngi jëm ca kaw nag te fii ndox nekku fi xam nga li ñuy wax ne su àllaaxira jumaa yëpp dañuy soppeeku bato waaw ku mës a julli ci jumaa soo ñëwee mën a mën a dugg ku ci mës a dugg julli soo dewee doo ci mën a dugg dangay lab ci géej gi rek nga ñu ci yàlla musal ñee ba bàyyi tabaxee jumaa ji ñëpp yi ñëwee ne na li ma gisoon de ëpp na lii waaye dundut nag ba gisaat lii waaw waaw xam nga jumaa ji moom na ko jekk bàyyi moo nekkoon ilimaan mooy limaani àjjuma su fi nekkul sama baay jiite noonu la noonu la nekkoon ak moom moo koy mooy jiite julli juróomi tam dégg naa àjjuma ji ñu fi njëkk a jiite baay moo ko jiite àjjuma ji ja topp sama baay moo ko jiite ndax da baay dafa tukki jox ko mu jiite ñu fi jógee itam li mu bind ci wasiyaam bi ci affaire imaamatu bi jàng ngeen ko dangaa bëgg génn affaire gerte loo amoon tool gerte looy waxee affaire gerte.
dañ ko bëgg a leeral parce que diwlin ak yooyu yëpp dañ ci doon wérante daal te ci bi leeral yëpp.
waaw xam nga affaire gerte bàyyi dafa waxoon na waruñ koo génne ndax seen bàyyi loolu la waxoon mooy masala ndax seen bàyyi ba muy dem Màkka réew yu lislaam bu mu wàccee daf leen di laaj ñaar fii xeet yi nga xam ne dañ ci génne affaire yan la. pare ñu leeralal kooku yëpp mu génne gerte ne ndax bii ci la bokk ci ne ko bii bokku ci dem moom itam aji màkkam fii la jógee dem na Faas ak Misra ak Marsaay ak yooyu yëpp jaar na wala ji dem na fa biñ dëppee fii nag gannaawam nag waa Sénégal bi ci weranteet su koy ñu yónnee Ahmed Sukayri ca Maroc di ko laaj mu wax ne nañ ci génne asaka bàyyi nag bind ci téere boobu irshadu saariin ila adami wujubi zakatil haariin dégg nga mu ne mi ngi biralal wala mi ngi jubal ñi nga xam ne doxkat yi mi ngi jubal doxkat yi ci ne génne asakaay haariin mooy gerte warut ndax loolu indi téere ba sax ne ba lettari sukayri ñëwee ci maam xalifa mu jàng ko ne ah mbir dikk na de sukayri jële mu ne dañ génne asakaay gerte te suñ bàyyi waxatoon loolu moom bàyyi na ko ah man de damaa amut lu ma jëndee kayit ak lu ma jëndee timbre su ma bindee ba pare waaye man su ma amoon kayit ak njëgi timbre mën naa koo tontu ma ne maam xalifa ne kon ma utal la rien kayit ci la bàyyi bind téere boobu su koy rijee itam borom xam-xam la dañ jàngee téere bi mu wax ne ca gannaaw waxoon naa ne gerte war nañ cee génne asaka waaye bi ma bindee bi ma jàngee téere bii borom xam-xam ba ca Soudan bind ndax booba jëm fii yëpp Soudan lañ koy tuddee Sénégal ak Mali yi yëpp Soudan Soudan rek lañ ko daal di Soudan la woon dégg nga dellu naa ca law la ma waxoon bu njëkk gis ne au lieu ñu génne asaka ca gerte ga nañ génne asaka ca diw ga ñu ne bàyyi bindaat ko leetar ne ko su fekkee ne lu am diw rek war nañ cee génne asaka kon garab gi tudd tiir fii ci ñun lan lañ ci war a génne ak lan mooy misaal dégg nga bàyyi daal moom àndutoon ci génne asakaay gerte waaw moo tax ñuy wax ñii yëpp tey taxaw rek ci télévision wala taxaw ci rajo rek di weddi borom xam-xam bu waxoon ñoom bàyyi bañu weddee dañoo taxaw dañoo bind téere bind seen i argument tëral waaye yow sañ-sañ yi wan mën naa wax déedéet rek moo tax nga taxaw fii di wax amul benn laay amul benn xadis donc fay da nga ko indi preuve pour ci li ngay wax yooyu caaxaan la ak yat nit ñi sax dégg nga te nit ñi fi ne ñëpp a jàng waaw ku jàngul sax li suma yaay di wax rek mu ne ñi doon nelaw sax riiram ñi doon ñi xeewu eexaale na la waaw ñi eewu di yëngatu rek eexaale na ñi doon nelaw kon nag fi ne kon kenn dofatut fexe waxtu wooy wax ak nit ñi nga xam li ngay wax def te sabut comme li maama laaji daa wax maama laaji daa daa wax ne abdu bi jaamoo yàlla masalaam daaw maanaam masala moom xam seetu ko daaw bare moom du ko jaamoo yàlla ren alors foog li muy jaamoo yàlla waxtu wu nekk mu di ko gis mu di ko leer bàyyi mu ne def ci xeroon ba ñaari saar yi muy julli jee eet sax dana xëy nafat ko balaa dem ca julleekaay ba waaw te kaang la woon loolu yëpp pour xër xër ci wax nit ñi lu leer ak lu wér waaw doomu aadama dafay fàtt gannaaw fàttee ngi waxtu wu nekk di leeral sa xam-xam di ko jàngaat dafa war bàyyee ngi nii su gàmmu jublisaan tam xarit la ñuy commencé di ko liiral téere siira yi bu jeex rek mu ne wàcceel bële waaw waaw dañuy toog néegam di jàng ba deux heures demi ci guddi waaw mosaw laa wax demal kër te mënoon mënoon naa mënoon naa gàmm comme ni ñuy gàmma ci sa xel ne of xeet di nga fàttali ko rek nga wax ci rek mu jeex waaye déedéet moom dafa amoon sixième daf koo jàng itam xam li muy wax gàmmu goo déglu rek da nga ci dégg lu bees ndax daf ko doon jàngal jàngoo tari feni neen loolu la olof wax ñu ne jàngoo tari feni neen waaw da ngay gis ki nit sëriñ bi gàmm bu bërset yow doo doo dégg xadis doo dégg laay laay alquran waaw yooyu yëpp yëpp yëpp nit ñi la sax te loolu la loolu la nit ñi ooxee sëriñ bu wax ba mu jeex te amul aaya amul xadis déglu télévision bi rek nit ñi daal soo leen respecté li ngay wax ak ñoom da nga koy jàng bu baax dégg nga waaw seet sujet yi bu baax masala yi nga seet ko delluwaat jàng waaw xofeet nii rek déedéet yooyu yëpp nit ñi la sax wala yooyu yëf yi yëfi meeting la xaw la xaw la yëfi meeting sax xanaa war ngaa dajeeg ay nit ngeen rab li ngeen war a wax ba yaay dem rek alhamdulilah waaw am na beneen question maanaam gars yi doon laaj maanaam ci la ci gàttal la pour soo ñu mënee résumé à peu près moom dernier vingt quatre heures bàyyi li nga xam ne suuf moom dernier vingt quatre heures bàyyi ak moom ban ay alxuraan moom la bàyyi daal bàyyi daal jullit bu baax la woon waaw jullit bu baax la nit ku baax la nit ku tabe la nit ku am xam-xam la nit ku am yar la waaw lu lu ànd ak yara di ko ak ñaaw jikko rek loolu du bàyyi waaw waaw nit ku yaru ba yaru ci sa kanam doon mas naa nekk Dakar man maa ngi nekk Dakar maa keeg maa ngi fii ci dëkk bi bàyyi di ma oo pour yónni ma ci ñoom kaay téléphone ba jot na ca Dakar kaay damaa bëgg nga ñëw gis maa keeg maa nga wax leen nangam ak nangam te man mënuma ci nag teg ma loo xam daay mënu ko ci waaye loolu yar la rek ñu maa nga Dakar mu di ma woo pour yónni ma ci ñoo xam ñu ngi fii ci dëkk bi kaay nga toog ak ñoom nga wax ak ñoom yar boobu nag moom moom la nekkee ba ba mu uj ci borom moom alxuraanam moom diinam moom tabeem moom léppam ak gëm yàlla bu mat sëkk kontaan ci dogali yàlla yépp itam dégg nga maa ngi fàttali bu bés ma ñëwee suba teel jox ko loxo loxo bi sedd ma ne ko bàyyi ah sa loxo yaa ngi sedd dangaa liw moom mosuma liw ci suma tund ma dem au docteur bi na ko kaay seet seetal ma góor bi man di loxo mi dafa sedd ak man bi bi docteur bi ñëwee làmb loxo yi nee na xol bi mu commencé taxaw waa deret di circulé tut ay sant fekk daf maa waxoon ne lu la docteur yi wax rek na mu ko wax mu ne lu mu wax mu ne xol bi moo commencé taxaw mu ne alhamdulilah moo tax benn bindkat ca loolu laaj na ma ne ma sama maam bi mu demee ba xam ne dafay dee ndax boobu jàqal na ko déedéet alhamdulilah sax la wax waaye sax la wax
diggante moom
naa ma laaj ñaata at ci lan ah moom moom ku jege woon bàyyam la ku jege woon bàyyam la ku daal liggéeyal bàyyam ku dégg bëccëg ba ñeneen ñi di ko ñaawal sax nekk góor guy liggéeyal bàyyam comme jigéen ju nekk ci néegi sëy moom ko daa wax di taxani di ko defaloon matt mu jaaru déedéet macha allah
bàyyam dag xadis bi yëpp dañ ko def ci ordinateur lii de printage yëpp ñu ngi ko ci kër
Baye ci ñaata at la opération.
waaw xam naa teel na dina wax ne na ma Cheikh Faye bàyyi Kabir Faye yéen mooy su jógee aan Banjul ñëw ñoom ñëpp ñoom xale yëpp dañ koy dañ koy gàttandu ndax gis ki leen daa indi la yu demee noonu moom Cheikh Faye ñëw ne xale yëpp njëkkalante di ko nuyu ku nekk ñu laaj yow kuy sa saar yow kuy sa saar li muy accès ci moom ne ko yow gone kuy sa saar kuy sa saar mu ne xale yi nag kii mokkal na bu yàgg mu ne ñu ne ñu ne ko mu ne mu ne kuy sëriñam ñu ne xale yi ne ñun de xamuñ koy ku koy jàngal waaye mokkal na bu yàgg mu ne kuy sa baay mu ne ko bàyyi mooy sama baay mama laaj Cheikh Faye jàpp ko ci loxo dem ba ci mama laaj ne ko bàyyi bés bu ma la gisatu rek kii mooy sama sëriñ ci xale yi waaw Macha Allah.
waaw
kii xaaju xaaju papa yi Misri ñëwam ci Baye ñëwam ci maam Alaaji moom naka la woon Abdoulaye Wul Xaaj waaw.
waaw moom xarit naa walaaji la rek dafa daa ñëw naa walaaji te nangul na ko wilaayaam ak xam-xamam ak nekk bër ci tariqa beeg yëpp moom nag daf daa ñëw fii comme ginaar yi daa ñëwee di laaj ci addiya su jógee dem